Malick Ngom mooy arbitre combat bi Malick Ngom moo arbitre woon Eumeu Sène ak Modou Lo Malick Ngom ancien la ci il est rassurant il est compréhensif Père Ousmane waay mi ngi wax ak ñoom ñaar mu ngi wax ñoom ñaar li règlement bañ tey daa mel ne Eumeu Sène Modou Lo lañ delloo tey loolo amaat Père Ousmane parcelle contre Pikine parcelle contre Pikine Père Ousmane Malick wax ak Ousmane 14 combats 10 victoires 4 défaites am 10 combats Père Ousmane 10 victoires. amul amul amagul victoire. il est 21 h 8 minutes Il suivre télévision drapeau l'international sénégalais de basket qui joue en Espagne. ña ngay demee wet ñoom ñaar ña ngay wet ñoom ñaar ñoom ñaar a ngay demee wet Père Ousmane comme ni ngay demee wet Franc ak Sokh ña ngay demee wet taxaw nanu taxaw nanu bëre combat bu yàgg Père Ousmane Franc ngi jiital tànku di joolam Sokh daa mel ne ak Franc Franc cokkaas na Franc ñeme na soq Père Ousmane. Franc ñeme na soq lool cokkaas na. gaw ni gëm na xeex bi Père Ousmane. soq soq nga jiital tànku càmmoñam moom it. Franc ngay defar ngay seere lapp taake ba. François Gomis. soq bi Franc soq soq xool ci bët. soq sànni na benn droite. Franc na soq door na ña xeex. ku ci ne door nga sa ku. da ko tege lancé Franc remise. la ilaha illallah. na Franc door na. da ngay doonante jàppalante nañu jàppalante nañu ñoom ñaar yéen Franc soq waay jàppalante nañu jàppalante nañu ñoom ñaar Franc ngay dóor Franc ngay dóor Franc ngay dóor Franc daan na ko daan na soq laay laay la laa Franc daan na soq yaay laay la da koo jël dëj ko da koo jël dëj ko Franc daan na soq aaway aaway jël bu leer jël naa ñaa jël bu leer nañ ñu la ko daan jël bu leer jël bu leer était prévisible jël bi leer na daan na ko daan na ko